jërëjëf kon euh, Serigne Moustapha Seck jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel suñu télévision Touba TV ci suñu euh, bis bi nga xam ne tey moom la ñu ànd ak yéen mu di spécial tabaski wante euh, bu ñu gërëmee suñu invité boobu jàll léegi nag xam ngeen ne waxoon nañu leen ne am na ay mbokk yu toog ci plateau bi waroon na ak si toog fi nga xam ne fi la Serigne Moustapha Seck toogoon kii ñëw nag xam ngeen ne moom itam taxawaay bu am solo boo xam ne nii. def nako ci walu njang mi waye tamit euh, ñu bari xam nañu liggey bi nga xamni ni mi ngi koy liggey ci xasida yi euh, bu ñu dee wax lenn ci ay jaar-jaaram nak ngir rek ñeukante ak waxtu yi mën nañu jaar na ci daara Serigne mbay geey waye ci daara Serigne Ousseynou Guèye fa la jangal fa la eggalee am njàngam kon ba bind fa ñaari kamil wante tamit xam ngeen ne lu jëm ci wàllu njàngum xam-xam geussu na ci lu bëre bëri ci nimbalul Serigne Moustapha Bakhair ziar momitam di ziar mbollem nak njabotuk Serigne mbacke buso, yëpp bu ñu juum ñoo ngi dale ziar bi ci ki nekk ci bopp bi waaye tamit nag di ziar mboolem ñi nga xam ne ñoo di njabootu Serigne Njaañ Buso rawatina Serigne Cheikh Buso mi nga xam ne su Serigne daara la ñu koy gërëm bu baax a baax wante nag bokk na ñi nga xam ne ñoo dugg ci njàng mi macha allah ndax diirub li ñuy li muy nekk ci njàng mi muy njàngum alxuraan mi mi ngi ci boole njàngum xasida waaye nag fi mu tàmbalee ràññu ko dëgg wala mu tàmbalee fanaan ci ay jàng ci programme ni ko baaxoo waxee bu ñu dee fàttaliku mën naa nekk atum 1992 loolu kon booba ak léegi yàgg euh, te mën naa firndeel kon xëy na euh, li ñuy wax expérience muy loo xam ne dana ko xam ci wàllu njàng mi kooku mooy kan duñ ci jaaral suñu bopp dañ leen di bàyyi mu nuyu téléspectateurs yi wante xam ngeen ni itam dana joxe ndéwénal comme ni ko mbokk yi defee ñoom ñëpp euh, dana joxe ndéwénal waaye tamit nag dana am lenn ci ay poñ yoo xam ne ni danañ ko waxtaane tey jii te mu soxal rek jataay bi waaye soxal bis bi nga xam ne ci la ñu nekk mu di tabaski ñu jox suñu gan mu nuyoo ak mbokk yi aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu sëriñ Mor Waane ngi lay bu baax te di la siyaar di la déwénatil ci bis bu tedd bi nga xam ne ci la saa mi nga xam ne moo mën a kàttaral ab jaam te mën man manam sori fu ne lim lu dimbalee bañ teew ci bis bu sell bi bu tedd bi euh, ginnaaw bi mu la nuyoo ñu bokki waa Touba TV yëpp di ko dale ci kilifa gi ba ci mujj ñëpp ñu ngi leen di saara te di leen baalu ak di leen ko baal di ñaan yàlla ñu ko fekk ay déwén yu baree bari te lépp luñ ci def ci sunu farata ak jaamu yàlla yàlla nangu lépp ñu yàgg ko te barki xaadim rasul euh, di nuyu tamit bu baax mbokki jullit yi ak fooy mën a ne ci àdduna biir réew mi ak biti réew waaye di ko jaare ci xalifatul am mi nga xam ne moo fi nekkal xaadim rasul di sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke ñu ngi koy nuyu te di ko saare ci bis bi di ñaan sun borom bayiko fi wëral ko lool mu yag ko jité mo njabot suñ tubaa gi topp ci ginaaw yépp ak njabotu gi nga xamné njabotu khadim rasul lañ ak mbokk julli yi nga xamné ñi ngi ci fu man ne ci aduna ñëpp ñi ngi leen di nuyu di leen saar di leen balax te di leen ko bal di ñaan yalla ñu ko téwé déwén bari barki khadim rasul jërëjëf sëriñ khadim kebe jërëjëf itam mbokk yi nga xamné ñoy bayyi xel suñu télévision touba tv Eh, sëriñ xaadim niñ ko waxee woon ci mbokk yi fi jiitu léegi rek faw ñu waxtaan ci wàllu xasida yi ndax tey jii eh, dañu koy baamtu baamtuwaat ko muy télévision Touba TV dafa am nag yéene joo xam ne ni am na ko ci bis bi di tabaski waaye nag eh, fas yéene koo dundal lépp itam mu teg ko ci bëggu-bëggu sëriñ bi waaye dëppale ko itam ak li nga xam ne ni moom moo di njàngum xasida ba tax na itam loolu mooy sababu sa teewaay fii ci plateau bi danañ ñëw ci wàllu njàng mi ndax kenn ku nekk ci ñi fi jaar am na loo ci sànni luy gën a baaxal njàng mi waaye tamit luy gën a murital liggéey bi wante nag euh, yow dañuy njëkk dugg ak yow rek ci bis bi nga xam ne ni ci lañu nekk mu di tabaski euh, ndax euh, waxoon naa ko léegi am na taxawaay bu mu am ci lislaam jarut ma ci siwaat ñëpp xam nañ ni sunna la wante nag ci wàllu dundalin mi ngir gën koo bàyyi loo xel mbokk yi ci la ñu joxe seen xaadim kàddu gi su ko defee mu àddu joxe gis-gisam ci dundalin wi nga xam ne nii waaye wala bokk du ñu ne gis-gis sax wante li nga xam ne ni war na euh, jullit yi ci bis bi ndax euh, lislaam moom xëy na amul gis-gis dañuy wax rek ne nangam la ko digle nangam lañ ci def waaye soxlawuñ ci gisinu kenn ndax ndigal la lu bàyyi ko suñu borom dañuy bàyyi koon sëriñ xaadim mu wax ab soññe jëmale ko ci fànn boobu waaw jërëjëf sëriñ Mor wax nga wax ju am solo noonu nga ko waxee noonu rekk la demee bis bii nga xam ne yàlla suñu borom tabaaraka wa taala moo nu dimbali ci kàttanam ban fekk ko euh, muy bis boo xam ne noonu nga ko waxee daanaka amul gis-gis li mu am mooy ndigal la lu jóge ci suñu borom tabaaraka wa taala euh, wàcc ci jullit yépp muy muy sunna soo xam ne tamit sunna su am solo la ndax lépp lu jóge ci borom tabaaraka wa taala rek njariñal jaam ñi la rawatina jullit ñi nga xam ne tabaski seenu seen seen ndigal la lu jóge ci seen borom wàcc ci ñoom. muy sunna su am solo muy lo xam ne tamit euh, mag ñi yàgg nañ ko fonk niti dini yàgg nañ ko fonk ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci lislaam di ay julli di ay kilifa yàgg nañ ci am ay taxawaay yoo xam ne lu waay gàtt-gàtt xam-xam tabaski moom xam nga li ci suñu borom tabaaraka wa taala diglee euh, muy muy farata joo xam muy muy euh, ñu baal ci kàddu gi muy sunna so xam sun sunu borom tabaaraka wa taala moo jaare ci sunu yantu Muhammad Ali Salatu Salam, mu jàngal lu ko te wax nañ ne tamit muy loo xam ne yàgg na fi euh, liñ ci li nga xam ne ñun ñëpp rek ci sunu xalaat wala sunu sunu sunu gis-gis ndax amul sax gis-gis waaye rek mooy nu def ko ni nga xam ne moom lañu ko sunu diine digale te kenn ku ci ne sa diine rek nga am te dañuy wax ne diine yëpp diine sunu borom tabaaraka wa taala la waaye diine lislaam nag moo gënal yàlla ci diine yëpp loolu ne maa ngi ko dégg ci làmmiñu Cheikh Mourtada ibnu Xadim Rasul mu ne diine yëpp diine sunu borom la waaye nag diine lislaam moo ko ci gënal euh, kon képp koo xam ne ab julli nga tënku ci lislaam léeg-léeg lislaam tënk ci bis bii rek ak léeg-léeg lislaam sant ci bis bii rek loolu nga war a góorgóorlu sa kam kàttan def ko ci anam bu sel anam bu teey aman anam goo xam ne da koy def ngir teewlu jëm ci sa borom ndax lépp loo ne ci suñu boroom la jóge rek wàcc ci noonu loolu buñ koy def war nañ koo def ci ci ci ci ci ci ci ci ci ay teey ci dal ci fas yéene jaamu yàlla ndax suñu borom ku jëm ci loo xam ne loola la sant war ngaa am teewlu fàttaliku sa boroom ragal ko xam ne lii moo la ko digal boo ko digalee nam nam la ko digalee nag soo neppee mën ngaa rafet njort bu a baax ndax yàlla ku am yërmande la te itam yii mu digal rek nun jullit yi loolu ci la ñu mën a jaar defe ko nam la ko digalee wala la nga xam ne suñu kilifa yi ne woon ci kanam noonu lan nu ko digalee te noonu la jógee ci suñu borom tabaaraka wa laa nu fexe ko sellal def ko ci anam boo xam ne suñu diine du ko bañ yeneen yi nga xam ne yëpp nag àdduna da ko ci indi te jamono mooy dox ñu bare bari bëgg boole dugal ko ci biir lislaam te bokkul ci bisu tabaski bi ñun ñëpp ñu di ko moytu rawatina ci dëkk bu tedd bi nga xam ne ci lu nekk muy dëkk xaadim rasul te moom léppam di lislaam ba na ko ba li ñuy wax ne lil Mustafa nawetu maay su sunnatawul xarra wa indi ahmadu moom dafa ñëw rek ngir yeesal tool bi nga xam ne toolu lislaam la te itam lii benn benn benn pàcc la ci lislaam muy tabaski noonu mu amee woon ca yonente yi ko jiitoon nan ko defee woon suy Seydina Ibrahima ak doom joojee kon euh, sunu sunu ci gàttal daal mooy nu fonk ko rek defe ko ni nu ko digale waxkat yeeg ay borom borom xam-xame yëpp waxtu wu nekk ñu ngi def ay soñee bu baax di fàttali rek li nga xam ne moo ci bokk ak li ci bokkul lépp loolu kon kon ñun ñëpp nu xam ko te jàpp ko yàgg koo defee nag te tamit lu yàgg def lu ne rek war caa man a am xam-xam boo xam ne dina moytu la nga xam ne boromam digalu ko ca ay fexe tamit góor ci la ko borom digal ba mu am tuyaaba joo xam ne ëllëg bu taseeg boromam rek dana sant bu baax a baax a baax. jërëjëf euh, Serigne Khadim Kebe yaakaar naa fàttali euh, fàttali ak soñe boobu nga xam ni euh, baax nga ñu ko léegi nekk na lu am solo loo xam ne ni képp kuy bàyyi xel télévision Touba TV rawatina ñu ci mel ne ñoom Serigne xaadim Fall danañ gën a mën a xam lan mooy tabaski ñu koy gërëm bu baax waaye di dellu di beral ab ziar ak nuyoo suñu xarit Serigne Ousseynou Mbodj. am naa jamono yi jombul ne tabaski gi mi ngi ko fekk ci ay cees ak yooyu waaye ñu koy ñaax nag moom itam eh, di sàkku rek bañ xar mi daan ko ñu ko ci gërëm bu baax a baax moom itam ci taxawaayam ci télévision eh, Touba TV wante Serigne Khadim tey faw ñu waxtaan ci wàllu daaj yi rawatina ci wàllu njàng mi rawatina njàngum mag ñi nga xam ne ñoom ñoo sos wàllu njàng mi ndax itam xëy na am na ñu fi jaaroon ñoo xam ne léegi xuus nañ ci fànn googu waaye du doy dafa nekk loo xam ni lu am solo la ndax euh, bu ñu nee njàng faw ñu wax cosaan li te bu ñu nee cosaan li itam faw ñu ma wax mag ñi nga xam ne bu njëkk ñoom ñoo ko daan def moo xam ci teewaayu ku tedd ki euh, Serigne Touba Cheikh wala teewaayu ay euh, njabootam yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekkoon ba wuy ji suñu borom fekki ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Bamba nga xam njàng moomu kenn nattablewut wér gu mu wér waaye tamit dëppale guñ ko daan dëppale ak bëgg-bëgg ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Bamba am na ñu ma ko waxoon fii léegi wante dafa nekk lu am solo loo xam ne war nañ koy baamtu ak di ko baamtuwaat ndax yaa ngi am liggéey boo xam ne yaa ngi koy def ci njàngu mag ñi ak itam ndax yaa ngi koy bàyyi xel ngir eh, ñi nga xam ne ëllëg danañu roy ji Serigne Khadim Kébé ñu mën a xam bu baax a baax lan mooy njàngum cosaan ak lañu koy doxale jërëjëf sëriñ Mor ci laaj boobu nga may laaj muy laaj boo xam ne ñi nga xam ne jege nañu ma waxtu wu nekk ñuy waxtaan xam nañu laaj bi nga ma laaj laaj bu ma bu ma amal importance la euh, mag ñi nga xam ne dañ fee nekkoon doon jàngal xaadim rasul sunu yaakaar ku demee ne sëriñ sëriñ mayib daana jàng ci kanamu ku tedd ki wax nañ ko ak yeneen yeneeni yeneeni mag ñoo xam ne daana fi nekk di jàng te mu siiw loolu nettali boobu am ñoo xam ne sëñ Masamba moo leen dajale woon ñu daa jang xasida sëñ Tuubaa ci wax nañ ne ci nekkuk sëriñ bi day lu am solo seigne touba tamit faw nga ko lol ndax euh, mag mu toll khadim rasoul ak dara jam ak tedd ngam ak nimu tollu ci yalla bu deme ba karamati khatu xattu wax ne li moy sama karama loola lu am solo la euh, te itam dénkaane na ba tàyyi wax na ci xasida yi ba tàyyi lu ko ci sax borom defal wax na ay dafu ak yàlbu lim am lépp ci la ko amee lépp wax na ko sëñ bi nettali na ko ci nettali wu ne ci ay xasidaam tamit ngay déggee wax ay waxam ndax lépp ci la message am lépp ci xasida yi la ko def si maam war a xasida la dalay fi di ak malakani dunya wa oxras samadu ak yeneen yeneen ay wax yoo xam ne irham jamial wala yaa hadiyan rada yu bëree bari ci xasida yi rek nga koy fekk te muy waxi xaadim rasul suñu yaakaar kon ku yàlla dogal na nga ne ci xasida yi di ci yëngu muy lu sëñ Tuubaa fonk lool segam nit ki sax su amee ci ci biir alalam dara du ñàkk lu mu gën a fonk muy tey rek euh, macha allah mbu mu rafet mii nga sol rek macha allah ci bis bi ngir dundale ko sunna bis bi euh, am na ñoo xam ne tey buñ buñ buñ ci bëggoon a lu dul noonu rek nga wan ne leen mbu mi dama ko bëgg lool ndax dama ko fonk te itam yàlla digle na ko nga sol yére yu laab yu sell. segam sa mbubb rek ngay fonk fonk goo xam ne bu ci nit bëggoon def lu dul noonu asa loo xam ne Sëñ Tuubaa nee na loolu mooy sama karaama kon xasida yi euh, nun amuñu lu dul moom rawatina ñun ñi ci nekk di ci yëngu ndax murit yëpp ko bokk ndax sëriñ bi ñëpp a tax jullit ñi sax ci la ñu bokk waaye nag ñun ñi nga xam ne yàlla baaxe na nu nu bàyyi métier yëpp bàyyi lépp nekk ci war na noonu lu lu ko gën fonk rek doyut lu nu war a gën a jàpp xasida yu doyut ndax nag budul woon li ci sëñ bi dig rek tedd nga jënd ci yàlla defal àdduna ak àllaaxira war naa tax nu fonk ko kon xasida yi man dama koy waxee ne lu am solo luñ ko fonk rek doyut luñ ko gën a wéral doyut luñ ko gën a jox àqam doyut ndax wax naa ko léegi bari na xasida yi eh, loo xam ne sëriñ bi da koy wax muy firi leneen yow nga yàkkamte ba teewloo ko waxee ko ni ko sëriñ bi waxee loola day firi leneen kon nag waroon cee góorgóorlu daaj yi nga xam ne mooy daaji mag ñi fi nekkoon daa ji am solo la ndax xasida yi sëriñ bi bind ko rek ngir dañ koy denc ci gaal yi wala bibliothèque yi dafa bëggoon ñu du ko yëkkati euh, ndax daana wax ne ku rafet loxo na ku bind ku neex baatit na ko yëkkati waxal na ne tamit ci njaareem am na ñu ko daa yëkkati te seen baat xawoon na kiimaane sëriñ bi dadaa dadaa wax ne ana ku leen mën a noppiloo ana ku ko mën a noppiloo te du mer nettali yooyu siiw na ci yoon wi loolu li ma bëgg a wax rek mooy sëriñ bi bëggoon na segam mooy karaamam bëggoon na ku rafet loxo di ko bind waaye nag ñu neex baat di ko jàng njàngin wi tamit am na sart yu ci sëriñ bi waxoon ci boo koy jàng àq ji ko war a jox ak dal gi ak itam xam ne lii tur yàlla la te suñ borom la la jëm nga bàyyi ko xel te yàlla ku jëm ci moom war ngaa toroxlu euh, sa lépp ak ak ak ak sa lépp nag nga nga jox ko sa borom xam ne da jëm ci yàlla loolu xasida yi ay tur yàlla la te li génnul yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi kon ñun ñu ci nekk daa yi mag ña dama koy jàng na ci daa yu sëñ dama koy jàng daa yu sëñ Aaji Siise dama koy jàng daa yu sëñ Aliou Fall dama koy jàng daa yu sëñ Moustapha Sy dama koy jàng amul menn mag mu fi sëñ Ibrahima jóob Karaman mag ñu fi nekk daa jàng njàngum benn benn rek damay jàng seeni jàng ak ak yu bare bari ndax njàngum aw la nu tudde waaye bu ñu toogee war a jàng bala ñu aw dinañ jàng ay xasida yu baree baree baree bare ci rajas te moo tax ñun daay yu mag yëpp am na famille band boo waree ci fi ñu koy wecc koo ci ci àdduna bi yëpp boo ne njàngum sëñ Xaadim Kebe daaj sàngam am na daaj yépp dama koy jàng damay toog sax tey waaj war a dem ci tànt men na mag teew sama sama xel ma bëgg daajam bëgg ko loolu di ko wayantoo ba ba may àgg fa may jàng su ma àggee loola laay jàng damay jël tam xasida gëm jëloon fexe tamit góorgóorlu ba imité na ma ko daa jànge ngir barkeelu ca waaw loolu daal wax dëgg yàlla jàng daaj mag yi moom bëgg naa ko lool fonk naa ko ndax dama koy roy lu may boole ci samay jàngale di ko minaas bu baax a baax a baax ndax barkeel ga ak nañ ko doon def ak mag ñañ ko doon defal loola ba ca barkeel loolu tuyaaba ja mën na laa fekk ci sa wàll gi nga nekk te tuyaaba du doy lu baax lu doy. Sëriñ Xaadim Kebe eh, waaye mbokk yi eh, ni ñu ko defee woon léegi rek eh, ci la ñuy wéy muy ànd ak yéen ci xasiday Sëriñ Tuubaa yi ndokkalante ci ndokkalante ci ak yenn ci bis bi nga xam ne moom moo di bisu it bi di tabaski. wante tamit nag euh, jaare ci rek balu àq ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi xel suñu télévision Touba TV waaye ñëpp ñi nga xam ne nii mos nañoo seq ay rëq-rëq wala ay jafe-jafe ñu leen balu àq ngir jëmmi suñu borom ak jëmmi bis bi nga xam ne nii euh, ci la ñu nekk. waaye laataa ñuy ñëwaat ci plateau bi dellusiwaat ànd ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Khadim Kebe ndax xam ngeen ne moom itam faaw mu jox ndéwénal ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi xel suñu télévision Touba TV moo xam ñu nekk ci biir réewum Sénégal wala ñu nekk itam bitim réew. waaye nag euh, dañuy ànd ak suñu mbokk yi techniciens yi ànd nag ak koo xam ne nii jàmbaara loolu moom itam ci roy njàngum mag ñi ndax mag ñi la ñu doon waxtaanee léegi ngir firndeel roy njàngum mag ni mu amee solo ak euh, ni ñu ko war di delloosee dëppale ko ak euh, ki nga xam ni moom moo ko jàngoon dañ ciy ànd ak Serigne fàllu Amar Serigne fàllu Amar mi nekk itam jàmbaar ñu ànd ak moom. بسالنا قد أتانا الجود والكريم لما استألت علينا لسوم بسالنا خذتنا الجود والكرم لما استألت علينا لسوم أصنع مذهبا مع الخفان في رجيب تجي في البواخر دما هريم نرجو من الوحيد القاري خالقنا خالدا وهو جبار ومنتخم وهو المقيس الذي أرجو إخاسته ولست للنفس في الدارين أنتخم وهو الحكيم الذي أجانا وما لم يكن زائيه فدايا عليم لا البايا لا أفعل ولا جل الوجود الذي قد زانه خدامه فمن له جل ينمي مادا ولدا مزلسا في غد سلل الخدام تبول يا زبي تزليس في عجل وسبي قبل موت بعده نظيم لربكم سريع مستسلمين معا بخوف سوسيات عن نسبي سلام الله باخ قديم لا يسابه ما بالبال يخطوى والمفيد عليم ومن يسلس دن مالكا سمدا فجاهل ويولى خيب له عليم أنتم يا علي عليلين معا سمون وهم ينكز في الألسن البكيم إني لا مدواب بل لا سريك له في البر والبر والواسع الحكيم عدو وكريم لا يخيبني بإذنه من تأتي قلبي الحكام وهو الذي كونه لليوم فعلي وأنفها دياسا الدساك والخمام يا ليت قومي في سليوم قد عليم بكوني ليائس هني مع الأمام قد كان لي ولا ومهما ومهمدتي له فؤادي والجسمان والخلام لا سكري بقرآن أوات له من سعدي لطيفه ولي وليم وهو الكتاب الذي من كان خادمه سجله العلم والأمال والزيام وإنني أعبد المولى به أبدا مات للزفير إن جود ديام وورقام الذي أرجى بخدمة ما بغى مال زوعي الغضب عليم أرجى بخدمة كوني أنا وغدا عند المقدم مثل من كانوا صلى عليه بدس لمن بمن معه وكان لي وبه لغد من أريمه وساق لي كل ما أعوى بلا طلب سوغا به يستبين الجود والكرم وساق لي كل ما أعوى بلا طلب سوغا به يستبين الجود والكرم مع دام ربي ودام المصطفى وسيري وبالبساءة تلاس الهموم مع دام ربي ودام المصطفى وسيري وبالبزارة تتلس jëf Serigne Fallou Amar ci njàng mu am solo moomu fàttali ñu lu bëree bëri ci njàngu mag ñi rawatina ki nga xam ne ni moom moo di Serigne Alaaji Cissé Serigne Alaaji Cissé moom bokk na ci ñi nga xam ne Serigne mu doon na ko wax léegi euh, jàngkat bu ràññiku la woon koo xam ne itam euh, boo xoolee euh, waa kër Serigne Saliou Mbacké li ëpp ci ñoom muy di ndongo tarbiya yi dañuy roy am njàngam Serigne Fallou Amar mi ci la bokk ñu koy ziyaare bu baax di ziyaare mboolem njabootu Serigne Saliou eh, di ziyaare itam eh, Serigne Cheikh mi nekk ci bopp bi ak Serigne Moustapha ak Serigne Djili mboolem njabootu Serigne Saliou ñoom ñëpp noonu leen di ziyaar waaye di ziyaare yaat Yatma mi nga xam ne mi ngi foofu ci kër Serigne Djili moom Serigne Abdou Lahad oh, bokk na ci ñi nga xam ne itam ñoo ngi bàyyi xel eh, suñu télévision Touba TV wante gannaaw bu ñu gërëmee Serigne fàll moomu ñu wéyee ni ak ki nga xam ne moom moo nekk ni ba tey ci plateau bi mu di Serigne xaadim Kebe waxoon nañu leen ko léegi euh, war naa jox ndéwénal ñi nga xam ni ñoom ñoo di mbokki téléspectateurs yi waaye tamit nag faaw ñu am ay poñ yoo xam ni danañ ci waxtaan comme ni ko ñi jiit woon léegi defe ba tax na ci kaw loolu ci la ñuy wéyale rek waxtaan wi ci Serigne xaadim Kebe Serigne Khadim euh, euh, ndax ba tey ci wàllu njàng mi xëy na sax duñ ko tuddee jafe-jafe ndax liggéeyal Serigne Touba moom amul jafe lépp ay ngëneel la wante na xëy na du ñàkk nga ci jànkoonteeg ay yoo xam ne nii moom mooy tax rek fay gi gën a duun loolu su fekkoon ne am na ci wàllu njàng mi lu xaw nuru ay gàllankoor donte du am euh, lan moo ci nekk comme lu nuru ay gàllankoor ci wàllu njàng mi rawatina liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy defal ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Serigne Mor liggéey bi de liggéey boo gis bu ne mbooloo di ca so mbooloo di ko deflu wala mbooloo di ko def wala mbooloo séq ko faaw jafe-jafe di ci am waaye nag jafe-jafe yu baree bari danañ ko mën a muñ danañ fexe it ba daanaka li ñuy wax naan turu du am ngir ki nga xam ne mooy boroom xasida yi muy xaadim rasul te fàggoo na loolu lépp waaye nag lu mbooloo di defandoo rek di ci am waaye nag jafe yi tamit yu ci ne ñu ngi ciy góorgóorlu te di ko bàyyi xel di ci di jéem euh, góor góorlu tamit di xeex ak moom ba jafe-jafe yi dañ jafe-jafe yi moom du dara mooy nit ñi ngay séqal rek te itam ndax nit ku ne ngay gis te nit ñi bokkuñu ay xel kenn ku ci ne buy ñëw ci yow ak xel mi muy indi kenn ku ci ne bi muy ñëw ci yow ak tamit jëmb ji muy indi euh, te kenn koo xam ne daa nekk loo xam ne da koy def ngir ñëpp kooku fa mu cay jàngote ngay jafe-jafe waaye nag suñ Tuubaa mi nga xam ne mi ngi nekk sunu kanam di nu liggéeyloo mi ngi nu ciy suturaal. agi nag suñ niteeg bopp ak suñ xelum bopp ndax lu segam ñëpp ñëw ci te kenn ku ne xelam lay indi yow yaay fexe ba ñooñ ñëpp nga xajoo leen ñooñ ñëpp bu ñu agsee nga récupérer leen euh, te ba fexe ba liggéey ak ñoom fexe it ba li daw ñu li tax ñu daw di la wut si nga fexe ba loolu lépp bu ñëwee rek nga waxtaan ci sécurité ak sa expérience ak ak ndimbalul sëriñ bi ba loolu lépp na ngeen ko bëggee yow ak ñoo koy def lu ñëpp ngeen am ko jafe-jafe yi nag mooy xasida yi mooy message sëriñ bi te ñun la yàlla nattoo ñu di ci ne noo ko war a yoral sëriñ bi bu baax a baax te boo xoolee réew mi àdduna si yépp ñuy bëggee sunum njàngale ñu doon euh, foo dem ci àdduna rek kaset yaa ngi fi yëngu yaa ngi fa nit ñaa ngi koy bëggee ñi ñaa ngi lay woowee fu ne nit ñaa ngi jóge ci barab yu ne di ñëw ci di saafante ak yow waxtu wu nekk nit ñaa ngi jóg di wut si saxame ak ñoom kenn ñii di indi seen i ñii di def lu ne loolu lépp jëmmi sëñ Tuubaa di tax noonu nga ci amee nag ay jafe-jafe jafe xam ne am na fu bëgg a am na tamit nunu ko bëggee am na loo xam ne tamit ñu ngi koy def ci réew mi te loolu dañ ko war a wane xam ko muy muy lu am solo ndax ñu ngi incha allah suba rek la war a tàmbali nekk tàkk suñuy bagage nekk ci ay tournée yoo xam ne dañuy am ñaari weer ci àll bi euh, jafe yooyu di am dama ne sax waxtu wu nekk suñuy dem dañuy yóbbaale ay caméra di xool lay am ci barab yooyu ñu di ko seet di ko indi di ko tegal waa àdduna ñëpp di ko seetaan ndax nag xasida yi ñuy liggéey noonu mi ngi mi ngi mi ngi joué rol bu am solo ci àdduna si loolu nag xëy na palaato bi ak ak waxtu ak xataay bi mooy waral du ñu ko mën a leeral lépp waaye liggéey bu am solo am na bu yàlla dogaloon tey nga amoon jot bañ ànd ñaar ak ñett rek ci biti ci liggéey bii nuy bëgg a tàmbali ndax xam ne xasida yi am na lu bare bari mi ngi koy def xasida yi day am loo xam ne buñ ci àndoon sax nga gis ko danga nga naan nekk ne njàngum xasida lii mi ngi koy def ci yoon wi ak ci nit ñi ak ci lépp ba tax na euh, jafe-jafe yi daal bariwul. tax na waaye tuuti rek la jafe yi mooy fu ñu bëgg a yóbbu liggéey bi rek noonu nu permettre nu yóbbu ko fa ngir nun dara dul message sëriñ bi rek gën a yaatu xëy na sax moom ba ba mu ko waxee boromam yàlla noppi na ca sëñ bi moom kenn umbaleetul mbiram waaye ñun ñi di ci nekk di ci liggéey kenn ku ci ne sëñ bi sarsale mission mission boobu nga ne ca ndax njàngum xasida du ku ko bëgg def def ko nit day nekk ci ñun ànd ak ñun ñaari fukki at du mën a sax aw nit ne ci tey bu subaa bu subaa mu doon jàngkat nit jàngkat siiw na ba tàyyi jëlug fenn sa ndimbalul sëriñ bi rek la kon sëriñ bi moo namm ñu jàng xasida yi xasida yi tamit jafe-jafe yi ñu ciy am mooy réew mi rek noo xam ne ñu ngi ci ndax tey buñ ñee jàngkat sàngam mooy fanaan barab sàngam lu mat junni nit danañ daw fanaani foofa koo xam ne amoon na naqar dina ñëw déglu bu dégloo xasida la ko neex ci sam njàng day daal di giif am na sax dañuy bokk ci weneen yoon nga dem ci barab di fa jàng yow yaa tax ñu jébblu doon ay murit yooyu yëpp day am ci yoo xam ne meraaran yoo xam ne am na ñoo xam ne tamit xaside tax ñu daw bëgg a jébbalu ci yow yow yaay fexe ba yóbbu leen ci sëriñ ba jokk loolu am na ba tey man jàngoonte naa ceeg yu baree baree baree bëri yoo xam ne eh, yoo xam tey buñ toogoon ba jot am rek dinaa la ci leeral yu bari wala ma wan la ci yu baree bëri kon ko koo xam ne mel na noonu ci réew mi rek am na àq yu ñu ko war a jox am na respet buñ ko war a jox am na jàppale buñ ko war a jox ndax it xasida yi ku ne war na cee dugal sa loxo ci anam yëpp nag waaye buñ ko dugalee seen loxo ci ci ci loxo waxi kese daanaka fi ñu bëgg mu àgg fa duñ fa àgg am na ñeneen ñi yëngu ci leneen euh, dañ leen jàppale rek kon li nga xam ne ñun message su sëriñ bi rek la ñuy jàllale waxtu nekk te suñu waxi maam wala suñu waxi baay kenn du ko jàng waaye bëgg rek liggéeyu sëriñ bi di gën a yaatu ci mission bi nu sëriñ bi sarse nu di ko def kon nag ak yooyu nga xam ne war nañ koo jox jàngkat yi bàyyi leen xel critique ak soññee mënul ñàkk waaye war nañoo war ci at yi nga la yi am bayi seen lépp topp ci topp ci xasida yi bëggunu bëggunu dara wan ginnaaw métier yépp ngir ngir bëgg a doon rek jànkatu xasida bu dul tonawuk gi sax rek gis xaadim rasool gi ñu ci bari moo leen ci bàyyi kon jàng jafe-jafe yi ñu bëgg mboolem kuy dégg sunu kàddu yaa xam ngay kilifa gu àdduna wala ngay kilifa aada wala ngay kenn koo xam rek yàlla dénk na la moyen nga mën a jàppale jàngkat ci ci bi taaru ndax bu ci ñëpp dugaloon seen loxo euh, erreur yu bari ñuy gis dana dañ parce que mag lu fréquenté di ci dugal alalam di ci dugal tam loola su boobaa loola dina ko jox àq dina ko jox gëdd ma bëgg di lancer appel daal ñëpp ñu dugg ci njàng xasida jàppale jàngkat yi su ko defee critiquer am soññee defee leen ko ni di fàttali ndax Euh, bu say at bariwul euh, man ngaa gis mag moom soññ la ne la lii ak lii ak lii amoon na ci temps sëriñ bi lii lii amoon na ci temps Cheikh Moustapha lii amoon na ci temps sëñ soññiwaat la indi ndax doomu aadama du mat kon maa ngi laa sa appel ñëpp jàpp ci rek ñoo xam ne lépp itam du jàngkat yi du ñu koy déglu ñu ñëpp ko bokk ndax alali la te sëñ Saali waxoon na ne ñu koy ñu koy déglu ñëpp sëriñ ku ci am na loolu sëñ bi dal kon maa ngi laa sa appel ñëpp jàpp ci nun ñu nga xam ne ñooy jàngkat yi nu gën a góorgóorlu gën a xam ne alali sëñ Tuubaa lañ yor loolu ko fonk rek doyut xasida yi loolu ko fonk doyut ko gën a taaral doyut loolu gën a sellal njàng mi tamit doyut ndax sellal njàng mi mooy soo demee ba bàyyi am barkeb xasida foo toog sa aajo faju kon nag yàlla na ko sëñ Tuubaa defal te te te defal ko mboole mi jullit di leen dellu di leen siyaare rek te di leen baalu àq yéen ñëpp te di sant di gërëm di ñaan suñ borom defal ñu tawfeex ñun ñëpp Sëriñ Xaadim Kebe jërëjëf itam téléspectateurs yi nga xam ne yéenay bàyyi xel tey suñu télévision Touba TV ci bis bu màgg bi nga xam ne nii bisub tabaski la ñu ñëw itam defal leen benn plateau waxtaan woo xam ne nii spécial tabaski lay doon waaye ànd ko nag ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy bay seen wàll ci waar wi nga xam ne nii moom moo di euh, toolu xasida yi Sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba wante euh, xam ngeen ne ñi fi jaar ñëpp. kenn ku nekk am na loo bàyyee téléspectateurs yi muy sab ziar ni ko olof yi di waxee muy ndéwénal li euh, du ñu def rek kon lu dul bàyyi sëriñ xaadim mii nag su ko defee moom itam mu joxe wàllam jox ko nag mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ni ñoom ñooy seetaan suñu télévision Touba TV billahi min aseytaan rajim bismillahi arrahmani arrahim barki xaadim rasul bismillahi maa ngi ñaan ci yàlla buur bi jara ñaan ak sunu yonnen bi lanu ñaan mu may nu ndam ci xarnu bee bismillaahi maa ngi ñaan ci yàlla buur bi jara ñaan ak sunu yonnen lanu ñaan mu may nu ndam ci xarnu bi bur yàlla noo ngi lay dagaan ci barkeeb sibtu adnaan seex sidil muxtaar lanu ñaan fanam wi màgg ci xarnu bee na ñépp booloo dellu ñaan ci barkeb xaadim lanu ñaan Cheikh Sidil Muxtaar ibnu Lamin mu mel ne noox ci xarnu bi dunduk saay ma fi woon mbaate xudara mi fi newoon na yàlla boole at woon joxsunu siidim xërnu bee dundug sooy bu ma fi woon mbaate xuddar mi fi na woon na yàlla boole at ya woon joxsunu siidim xërnu bee seex siidi muxtaar lanu yeem yaa di sakkiyu moonu yeem xewal yi yëpp na na giim sabaatin wóor na xarnu bi yaa dambe mbooti Musaa dem nga ba marwata ak safa añ nga jaale fii kifa yal na nga raw ci xarnu bi ki jara yaakaar fik feleen kenn du la xam di jëm feneen yaay sunu yaakaar ba jinaan amoo morom ci xarnu bi mboolem murid yi déglu leen ma wax ci Seex Ibnu Lamin baatin la feeseek wa komin wax koy ci xarnu bi xabit la xaalim lay boroom wilaaya mbàkke doo moroom yaay sunu yaakaar ba fa daam xéewal na daaj waa xarnu bi yaa yore baatinub lamiin sañ-sañ nga yor fii kulli ayn ya yore caabi mangasin tijil da farwa kharnubi ya yaay bopp réew mi nanga bay walangan bare umi gejal ci kharnubi yaay bopp réew mi nanga ñaan xewal yu daaj bay wala ngaan mi géejal bañu naan maslaam ci xarnu bi yaay bopp réew mi nanga ñaan xewal yu daaj bay wala ma ñëpp gee jël bañu naan li maslaam ci xarnu bi ñaanal tawal na jëm feneen bekkoor na génn fiig feneen xulub gi xeex seen na jàmm daj waa xarnu bi andil nu jannatin naim mbaa xuldi mbaa daaru salaam mbaa dafa tuuba karidaam firdawsi noog waa xarnu bi yàlla sa ay gi yàgg lool yàlla sa yi àgg lool na suñu mi am jàmm lool bu kenn nga yoo xërnu bee yàlla na say gi yàgg yàlla na weet yi yàgg na suñu mi am jàmm lool bu kenn nga yoo xërnu bi waa Sénégal dellu si leen ki yore baatinub lamiin desu ko sóoru fiig feneen amul moroom ci xarnu bi Cheikh Sidi Muxtaar na nga saa su la soobee dañu naan mi réew a jiite feneen ñaanal nu ci xarnu bee Cheikh Sidi Muxtaar na ñaan saa su la soobee dañu naan mi réew a jiite fii ñaanal nu ci xarnu bi lillahi rabbil alamin baal na fi Seex Ibnu Lamin yàlla na nga raw fileeg feneen muccal mosal waa xarnu bi jaraama Mbàkke yaa nu yem lewet ak maanu muñ ñi xiim yaa mën a boote yaay kërim bëggaleen mboolem xarnu be Seex Sidi Muxtaar noo ngi fegal nu wépp ayu noon ñaanal ba dunu gis ayu noon feneen ci xarnu bi waa Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw fii ak feneen ñëw leen giseek ibnu Lamin mu may nu gën ci xarnu bi yaa doonu Ahmadul Lamin Cheikh Sidi Mokhtar Ibnul Lamin sa baatin wóor na ku lamin xam na ko dañ na waa xarnu bi yaa jiite waa daarul xudoos yaa guymindi yaa di seen rees yoonu murid fii ba faraas yaa yore jaasi xërnu bee yaa jite ba daarul xudoos guymindi yaa di seen rees yoonu murid fii ba yaa yore jaasi xërnu bee Sidi Muxtaar na nga gaaw ñaanalal séew mi ñu ne waaw na ñëpp géejal baraxaaw yaay Bamba tey ci xërnu bee Sidi Muxtaar ñaanalal sa réew mi ñu ne waaw la ñëpp géejal ba ne xaaw yaay Bàmba tey ci xarnu bee si di Muxtaar Mbàkke na nga gaaw ñaanalal sa réew mi ñu ne waaw na ñëpp géejal ba ne xaaw yaay Bàmba ci xarnu bi miskin yaa di seeni baay faqiri yaay seen wéeruwaay ñuy maslu yaa di seen najaay rawal rawaale xarnu bi murit ak tijaan nan ne waaw xaadir ak laayeen bu ñu saaw cene ba ak ña seen ne waaw jullit yi booloo xarnu bee. sëriñ bi nee na mi ngi ñaan itam. li nga xam ne. li nga xam ne. moo xew ci jamono bi. moo xew ci jamono bi. ci tariixa yi. ci tariixa yi. loolu laa bëgg mu jóg fi ba set wecc. loolu la bëgg mu jóg fi ba set wecc. ndax lépp. ndax lépp. lenn la. lenn la. murit ak tijaan nan na waaw. xaadir ak laayeen bu ñu saaw. cene ba ak ña seen la waaw julit yi booloo xarnu bee murit ak tijaan lan la waaw xaadir ak laayeen mu ñu saaw ba ak ña seen la waaw julit yi booloo bee mboolem tariixa yi Sénégal na ñëpp booloo benn saal ñuy àndandoo bokk misaal doon benn fii ci xarnu bi waa muslimina muslimaat ak saalina ak saaliaat na ñëpp àndandoo seytaane fii ci xarnu bi amiina amiina ni leen amiin ci barke Cheikh Ibnu Lamin ku dégg wax yi na nga ñaan noo am gëneeli xarnu bee jërëjëf sëriñ Xaadim Kebe ci njàng mu am solo moomu nga xam ne Euh, niñ ko waxee woon ci fi jaar rek moom itam mat na sëkk ziar waaye mat na sëkk ndéwénal ci mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñooy bàyyi xel suñu télévision Touba TV tey rafetlu euh, bàyyi gi ñuy bàyyi xel suñu télévision euh, Touba TV. wante itam sëñ Xaadim gannaaw yi tamit bi ñu la joxee kàddu gi nga ziare mbokk yi bàyyi xel suñu télévision Touba TV ci ndéwénal li du ñu def rek du dul bàyyi la kon ngay këti kàddu yi nga xam ne moom ngay tëjee jataay bi. jërëjëf sëñ Mor. kàddu yi ñu yëkkati jotaay bi mooy di la sant bu baax euh, ci palaato bi nga xam ne seq noonu ko euh, di la sant di la gërëm di ñaan suñ borom tabaaraka wa taala mu guddal sa te jàppale la bu baax yàgg euh, waa Touba TV yëpp ku dale ci kilifa gi caméraman yi ak techniciens yi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen baal di seen liggéey bu baax nag di ñaan Sëñ Tuubaa nga xam ne moo tax ngeen nekk ci liggéey bi mu jàppale leen fu ngeen bëgg tele bi àgg fa rek Sëñ Tuubaa jàppale leen ba ngeen yóbbu ko fu kawe seen jot. di ñaanal sëñ Cheikh Mati Lay Cheikh Sidil Muxtaar suñu boroom guddal fanam te wéral ko ba yéene yëpp àgg ak njaboot sëñ Tuubaa gi yëpp di ñaanal sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Mbàkke Madina sunu wasila ak njaboot sëñ Mbàkke Madina gi yëpp suñu boroom guddal seen fan ñaan suñ ba fa ñu eh, àgg lépp sëñ Tuubaa àggale leen fa njaboot sëñ Mbàkke Madina gi yëpp di sant sunu wayjur yi ak soppe yeeg xarit yeeg am di jàmbe yeeg yëpp di sant taalibe sëñ Tuubaa yëpp di ñaan bis bi yàlla nañ ko teewe ay déwén yu bari te lépp luñ ci def yàlla nangul la ko ci barke xaadim rasul jërë ngeen jërëjëf sëriñ xaadim Kebe jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel suñu télévision Touba TV ci bis bi tey ñu ànd ak yéen mu di spécial tabaski goo xam ne nii dañu leen ko jagleel waaye nag ànd ko ak ñi nga xam ne euh, ay jàmbaar lañu waaye ànd ko ak ñi nga xam ne nii kenn nattablewut seen taxawaay ci lu jëm ci wàllu njàng mi rawatina euh, xasiday sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba euh, kon mbokk yi ba tey. am na yeneen mbokk yoo xam ne nii war nañu ci plateau bi waaye ni ñu ko doon waxee léegi ay surprise la ñuy doon waaye mooy kon ay mbetteel yoo xam ne nii euh, bu ñu toogee rek daañu leen xam kon nag euh, du ñu def rek lu dul delloo njukkal Serigne xaadim ci jàppani gi mu jàppani tey ba ñëw fii wante nag euh, ñu ànd ak suñu mbokk yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci wàllu technique bi su ko defee ñu déglu xasida siwaat itam ci guddi gi nga xam ne wala dellusiwaat kon ci bis bi nga xam ne nii bisu lislaam la waaye ngeen di ko ànd ak suñu télévision Touba TV.